ci bàyyi bàyyi duna wax ni sàmm bu nekk yomal dina ñu leen laaj li nga daan sàmm la nga doxale si diggante ak ñoom ñu dégg la bërki démb ci iit ji ci wàllu diine nga ni nit ñi ragal leen yàlla ragal yàlla mooy fondement lu nekk tey ci wàllu liggéey bi ñu gis la nga jiite lu rafete nii kon kañ ñeen lii seede nañ ko te defe naa bu bésu xayma baa dana doon xujjatu lekk ñu naan nag liggéey boobu eh, yàlla sax dina ko fay waaye daal ñu déglu la si ak it tegtal yoo xam ne di nga ko si jox ñi nga xam ni ñoo topp ci sa gannaaw. alhamdulilah maa sant yàlla bu baax man itam naka ngeen sant nga xam ne moo ñu may xéewal yi nga xam ne bés bi lenn la ci. yàlla def na ñun suñ diina moo di diina lislaam diina lislaam du jaamu yàlla rek bàyyi àddina du topp àddina rek bàyyi jaamu yàlla yonent bi fa ne sallallahu alayhi wa sallam ci yéen ki nga xam ne dafay topp diinam rek bàyyi àddina gënut ci yéen ki nga xam ne dafa topp àddina rek bàyyi diine ki gën mooy ki nga xam ne dafa boole yaar yëpp ngay liggéeyal sa àddina bañ defe ne da da ngaa fasoo biir ci àddina nga liggéeyal fa alaaxira dañ defe ne da ngaa fasoo dee ëllëg loolu suñ diine laaj te alxuraan da ko wax ne boo fiixee ci jaamu yàlla rek sonnal ci liggéey ñun suñ diine du diiney xaaraan du diiney tegu ci kaw nit ña ku nekk dafa war a liggéey liggéey jëf la liggéey teraanga la moo tax ba képp kuy jullit war nga am métier mooy liggéey yàlla bi mu wàccee diine ji nee nañ ko jaamoo diine ji ndax wàccee métier yi itam nee nañ liggéey ci métier yi bee am lu ñu wéyee cosaani métier yi nag ñeneen la woon mbay ak tabax ak rab bu piis ak gouvernement yeneen yi ñooy cosaani métier yi ci def yëpp lu tax mbay doomu aadama yàlla dafa wax ci alxuraan ne bindu doomu aadama muy yaram woo xam ne dafay dund te du lekk fokk mu lekk bu lekkul rek dee voilà fokk mu lekk nag looloo tax mbay di lu war moo tax métier mu jëkk moo di mbay mbay ba am loo lekk gannaaw loolu doomu aadama yàlla bind ko mu mel ni jur gi mën a def yaramu neen fokk mu am lu mu teg ci yaramam moo tax rab bi fi ñuy xoddoo itam di lu war moo tax rab itam ci métier cosaan yi la bokk gannaaw loolu tabax damaa dama mënta dëkk ci bitti ne jur gi foog mu am néeg muy nekk moo tax tabax itam di mécc gannaaw loolu doomu aadama mën da beru di dund mën da dund lu mooy ci biir nit ña mbooloo dañuy daje mat dëkk ay dëkk booloo mat ab kanton kanton daje mat am réew dañ booloo ba lépp nekk réew mi ci boppam am seen président mbooloo nag buñ dajee am na ñu jub ak ñu jubut am na ñoo xam ne dañuy tooñ soññi seeni morom loolu moo waral gouvernement it fokk mu am ndax su fekkee gouvernement am na ku tooñ gouvernement jàpp ci sa loxo def la ci war su fekkoon gouvernement amut nit ñi dañuy dund ci di lekkante rek ko sa doole morom dal ci kawam waaye loolu yàlla bañ na ko def gouvernement mu di karam ci àddina si kuñ tooñ rek nga dem tàpp ji ci moom mu dindi sa tooñ muy mbéy muy rab piis muy tabax néeg muy gouvernement yeneen yi ñooy ci yi ci des yi ci des yëpp ci la ci la topp yeneen yooyu itam ñu dimbalante maa ngi sant yàlla rek ndax dimbalante googu yàlla def na ko ñun suñ diggante te bésab tey bi wane na ko ñu ngi bay fii ñu ngi sos fii loo xam ne ci sos rek lañ nekk te lu day ni président assemblée xam ne moo ñaareel ci réew mi ñëw ànd ak ministère Thierno Diop ànd ak gouverneur Ibrahima Faye ànd ak préfet Adili ànd ak député Lamine Sarr te Ibrahima Thiam ak fonctionnaire yi ci nes indil ñuy directeur mbay yoo xam ne kooku moom mooy suñ wàll loolu wane na bi nga xam ne moo nekk suñ diggante maa ngi ciy sant maa ngi ciy gërëm bu baax lii itam li tax ñu sos ko mooy bëgg rek réew mi jànge ci réew mi xam ne dañoo war yokk ndax jamono ji jëkk ak jamono léegi bokkut jamono dafay dox jamono dafay yokk kon nit ñi war nañ saa yi na ñuy yokk seen coono bu jëkk nit fii ci réew mi buy tukkilee yaay ni fii ba Kaolack ba Ndar dafay dox ci tànkam bu dee borom barke lay am daaba jum war léegi kenn ci yéen attanuta dox ba sookoon ci tànkam bu jëkk sa néegu ñax ngay am indi tagar def ci ñu bari ci yéen sax xamul li tagar mooy bant yi rab rek samp ko muy laal nga tëdd ci wala ngatan rab ci gi rek samp sa yeneen jën teg sa ngatan di ca tëdd loolu doyoon na boo bayee sa dugub def sa laax sàkk ci guy yi def ci walla sàkk ci daqaar def ci boo amee gan sax rusuloo ko taajal loolu su ngoon jotee nga def sa cere neen boo ko bëggee ren danga ah, rocc ci xobi garab yi def ci loolu doyoon na dund bu njëkk xam nga ne loolu doyut leen léegi léegi dem ngeen weeg ku ci nekk lal lalu tubaab lay tëddee di jéem a tabax néeg dindi ñax mi di jéem a def seng booy tukki bëgg a war automobile wala ci sa saret eh, booy lekk bëgg a lekk ceeb kon dépense bi yokk na bu baax liggéey bi itam war na yokk ñi nga xam ne ñoo doon dund dund bu njëkk ba seen matériel yi mbay yëpp moo seen semiñ ak daba ak ileer ak konk jeex léegi ku nekk bëgg na am sari bëgg am ay nag yu koy xëcc wala ay mbaam wala ay fas kon bi nga xamee ne bëgg-bëgg yi yokku na dépense yi yokku bu liggéey bi yokku rek yëf yi du dem Eh, ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy bay te yàlla may ñu suñu suuf si nga xam ne président bi ngeen a wurus la te wax na dëgg lu nekk mën na fee nañ boole mbayam ceeb mi ci yiñ doon bay te buñ mu tax ñu bàyyi yiñ doon bay bu jëkk dugub ngay bay bay tuuti gerte dem jaay ci tubaab bi buñ ci jisee njëriñ ñu di ko topp ba gerte gi di dem ba ak si fii man bokk naa ci sëriñ yi nga xam ne bokk nañ ci ñu jiitee mbay gerte ci jamono tubaab bi booba tool toolu gerte bu rëy boo xam ne rek tubaab yi dañuy ñëw di ko seet si suñ ne ruut ci man rek ca Mouhamadou Moustapha Mbacké ca Bawol la eh, léegi mbayam gerte mi dem na ba ñëpp dugg nañ ci def naa ku leen waxoon sax ne bu leen bay gerte yi dootuñ ko déglu ndax gis nañ ci seen njariñ te njëriñ a tax ñu di ko def kon nag moo tax mbayam gerte moom jaratu leen a jàngal moo tax ñu bugg leen jàngal mbay yeneen ndax mboolem yi ñuy bay ci biti réew yëpp ñun ñi diko ko lanki di ko jëriñoo mën nañ ko bay ci suñu réew bu ñor ceeb bi war na ci raw ceeb bi ceeb ba ca siin gënu ko rafet gis na tool yi ceeb yi ca saygon waaye gën nga rafet ceeb bi kon nag li tax ma def tool bi fii du manki ceeb dama bëgg rek mbooleem ku fi teew rek bu déenee na am toolu boppam toolu ceebam te bu mbay bàyyi toolu gerteem bu mbay yi toolu dugubam e dimbalante gi itam ñu gën koo saxal e lislaam ak gouvernement mën nañoo dimbalante kenn yàqut ci moromam ñu naa gouvernement